Ibrahima Sène maa ngi lay nuyu maa yaa ngi bokk ci euh, PIT nekk itam euh, président conseil d'administration bu MIFERSO. Euh, ñu am mbégte lool dalal tey ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weeru juin bi nga doon sunu gan. tey nag ñu jege lool premier juillet di bis bi nga xam ne njiit réew yi Afrique yi bokk ci CEDEAO moom la ñu jàppoon ngir créer ECO ak itam banque centrale fédérale bi nga xam ni moo waroon toppatoo lépp lu ci aju waaye bi ñuy jege bis boobu. yow am yenn réew yoo xam ni bëgg nañu ñu dàq ko yu ci mel ni Nigéria euh, yow nga bokk ci ñuy jàpp ne waruñu topp Nigéria ci loolu euh, ndax mën nga ñu euh, expliquer sa position boobu. waaw parce que bi chef de yi jël décision créer monnaie commune pour la CEDEAO le premier juillet nga jël boobu décision. problème ci Nigéria doon yëkkati yëpp mooy loolu ba mën a am pays francophone yi nekk euh, franc CFA ci biir CEDEAO pays yooyu dañu dagg seen diggante ak France ci question monnaie tant que dagguñu ko affaire bi du mën a sotti loolu Nigéria waxoon non seulement. Euh, euh, yeneen euh, dëkk pays yi nga xam ni bokk nañu CEDEAO te nekkuñu euh, ci zone franc d'accord nañ ci mais même suñuy peuple euh, CEDEAO yi ne UEMOA d'accord nañ ci li Nigéria e wax UEMOA dafa war a dagg buum bii nekk suñu diggante ak France ci sunu monnaie monnaie te buum boobu li ko li tax moo am mooy sunu sunu état yi dañu signé ak France accord monétaire boo xam ni genn wàll bi lépp lu am ci devise étrangère genn wàll bi ci trésor français ñoo koy teg euh, ba pare France am ay kàngaama yu nekk ci BCEAO ak ci ñu nekk euh, comité monétaire bi nga xam ni mooy saytu sunu xaalis bi mu am ci ay kàngaama yi nekk ci biir ah ñu ne kon bokk loolu nga xam ne moo lal buum boobu na dañ sunu peuple di ko ñaxtu société civile di ko ñaxtu ba le vingt et un décembre deux mille dix euh, sunu chef d'état yi d'accord ñu ay li ñu woon sunu réserve yooyu nan ko génnee trésor français jox ko sunu banque centrale kàngama France yi noonu génn dootu ñu bokk ci ñuy sunu sunu monnaie loolu di mu amee mu bett ñu bari ñoo xam ne yaakaaruñu ko woon ndax dañu yaakaaroon ni suñu chef d'État yi France def leen ngalab boo xam ne duñu mën a def loolu bi ñu ko defee kon bokk buntu ubbeeku pour ñu mën dem premier premier juillet bu nu sosee euh, banque centrale bi li ci des suñu diggante ak France mooy sunu or bi nga xam ni banque centrale da ko da ko ko banque de France or boobu mooy tax France moo tax France d'accord ni ci diggante bi fekk ñuy def sunu monnaie commune premier juillet ci diggante bi dina continuer di garantie euh, franc CFA mm. ñu ngi tuddeeku pour que euh, parité bi mu am ak euro parti boobu sax ba keroog ñuy yegg ci monnaie bu bees bi mm. ah loolu euh, euh, dafa ubbi yoon ba nga xam ni man bokk naa ci yaakaar ni chef d'état yi danañu sàmm seen kàddu pour tabax monnaie boobu le premier juillet mais ci diggante bi France ak Allemagne am ñu nu yëngal ay intellectuels ñu nu yëngal toppale noonu chef d'État yooyu mooy li ñu def dañuy sëlëm askan yi boobu jaam bi nekkoon diggante Sénégal réew yooyu ak France ba tey mi ngi fi te ñoom bañ wax ni buumu yàmbaaw bi dagg na ba xam ni benn pàcc moo ci des mooy sunu or bi nekk foofu te or boobu premier juillet mu jëlee fa. Hmm. waxuñ ko de parce que non non euh, loolu bu ñu ko waxee bu woon yàq xelu euh, euh, Nigéria bi ni tant que buum boobu daggul moom du mën a d'accord ñu dem def monnaie commune hmm. mais li ci bees mooy ñoom yëngal nañu ba tay mais euh, liggéey bi ñu chef d'état yi doon liggéeyloo euh, techniciens yi pour tabax monnaie bi le premier liggéey bi doon continuer mm-hmm. ba keroog rek onze février deux mille vingt président Nigéria bind président union UEMOA euh, ñu leen non non affaire doon ko war a ndax critère de convergence mooy critère yi nga xam ni te ñoo leen ŋàññ ci àddina raw na union européenne bi nga xam ni dafa sampoon euh, ndëndam ni critères yi ko ko respecté wul du du wax yow ba indi woon ci coono ci digg ci diggante Allemagne ak euh, Grèce Allemagne ak Italie ak yu demee waaye ñoom bi bi mbas mi excès loolu xam ne ay région hmm. critères yooyu bu ko bu ko respecté du ñu mën a génn ci co ci jafe-jafe yi. Hmm. moo tax ñoom ñu at ko ñu at critères yooyu. Hmm. chef d'état yooyu itam profité ñoom itam at yooyu critères ni kon moom yooyu ñu ci mën a wéeru pour liggéey na da koy at. kon léegi ci sa xalaat lu waral Nigéria moom tëb bëgg a ngoy ci critères yooyu ne moo tax ñu war dàq. man li ma yaakaar mooy Nigéria. li UEMOA def dafa ko def mooy tam dàq critères yoo xam yooyu ñoo tax Nigéria kattan gi mu am di tax tax loolu moo tax mënul dem ñu di kon bokk ñun foog yaakaaroon nañ ni Niger ci profité wu pour dindi critères yooyu ñëpp mm. ñëpp dajaloo defar monnaie bi le premier juillet mm. mais bi mu yëkkatee ni il faut que ñu respecté critères yooyu buñ ko respecté wul non seulement moom du d'accord ñu def moo def du premier juillet mm. mais même CEDEAO mën na ci doxee tas ma ne ah lii nag euh, euh, euh, mbir bu yëkkatee bu jógee li ko yëkkatee moo ko ëpp doole lu yëngu la ko yëngal ak ëpp doole ngoog kon borox lu tax président Nigéria wax li nan ko seetaan nga njoxte am na lu ne ci ginnaaw waaw ma nekk ma bi xaw ma li muy xalaat mm. waaye li ma natt mooy mm. mbas mi dafa wane ni sunu mu ne moo gën a stable moo ëpp doole monnaie Nigéria yi nga xam ni dafa mbas mi bi ñëwee da ko nërmel nërmel bu metti ah ma yaakaar ni Nigéria bugg dem di négocier monnaie bu bees boo xam ni day fekk bu nekk rapport de force euh, yu favorable ak moom ça veut dire que day nekk position de faiblesse pour euh, proposer des choses face à, à la monnaie commune de leur mois. Mm-hmm. donc yaakaar naa ne loolu bokk na ci li tax mu ji jéem a dellu ginnaaw surtout li ma gën a yàq sax mooy Nigéria dafa foogoon ni suñu réew yi UEMOA bu ñu génn bu ñuy tàggoo France ku ci nekk tey def sa monnaie bopp euh, comme Gambie ni mu amee monnaie boppam Ghana am monnaie boppam Guinée am amee am monnaie boppam Nigéria am monnaie boppam ñoom yëpp ku ci nekk am sa mën a bopp comme ça ñoo mën a dajaloo def le premier juillet euh, euh, euh, une monnaie commune mais gis nga loolu bu amoon kon Nigéria mooy nekk buur di buur mi ci biir monnaie commune boobu mais puisque loolu amul te pays UEMOA dina ñëw ensemble en bloc ak monnaie bu am doole loolu yaakaar naa ne moo tax Nigéria dellu ginnaaw Mhm. mais li mu ci mënti doon dëgg la euh, sunu koom-koom kom koom CEDEAO bu dee téeméer juróom ñett fukk yi Nigéria moo ko moom mais bu yaakaaree ni loolu mën ci sukkandiku pour wan ginnaaw yeneen réew euh, yi mu bokkaloon euh, CEDEAO dafay juum ndax sant république sud africaine li ëppoon doole ci économie Afrique bi yëpp dafa sàggane euh, dëkk yi ko wër faale wu leen amul ak ñoom ay relation économique yoo xam ni dana mën a fexe ñuy jënd di jënd di jëndante ak ak di jaayante euh, di dëkkante ak di demante ba tax na mu nërmeelu ba Nigéria bi nga xam ni au moins bi ñu defee CEDEAO tëral nañu ponk yoo xam ni eh, mën nañu jaayante ak di ak mën jaayante ak di jëndante bi ñu defee eh, tarif extérieur commun mooy am benn droit de douane boo xam ne ñoo ko bokk deuxièmement nit ñi mën nañu dem di dikk ndax am nañu passeport commun eh, CEDEAO mm-hmm. loolu moo may doole Nigéria bu mu yëkkati ko ba raw Afrique du Sud mm. buñ ci tegoon nag mu ne commune eh, ma ni CEDEAO dina am doole doole boo xam ni yokk ci ñu def sunu eh, armée commune kon taxawaayu CEDEAO fii ci Afrique te doon jëmm boo xam ni Union européenne particulièrement France ak eh, Allemagne dootuñu mën a am li ñu yaakaar. di ko wut ci Afrique. justement euh, sa sa contribution bi nga euh, mujjee bind ci wàll woowu. Euh, bu ñu ko xoolee bu baax dafay mel ni France ak Allemagne kon ànd nañu ci nii waaye ci biir biir arrangé wu leen tey itam neexu leen loolu daf ñuy indi Ibrahima Sène ñu interroger wu ci enjeu yi kon éco bi ak CEDEAO booloo lan mooy enjeu bi. mais enjeu bi mooy dañuy am union boo xam ni union économique monétaire. di militaire boo xam ni képp ku bëgg a wax dara fii ci Afrique def fii Afrique dara da nga du dégg nopp euh, euh, te sunu réew yi kenn du leen mën a caxat caxate benn euh, di leen bennoo caxat caxate loolu day jeex France loolu neexu ko Allemagne mi bëgg a wuutu France biir Afrique loolu neexu ko loolu tam loolu moo tax ñoom ñoo intellectuels yi nga xam ni doonu wéeru ci ñoom di liggéey di leen liggéeyal ci université yi ci société civile ak même ci biir gouvernement yi intellectuel yooyu ñu yëkkati leen fooxu leen pour que euh, euh, lii euh, chef d'état UEMOA yi sumb jëmale ko premier juillet pour que CEDEAO mën a am jëm boo xam ni taxawaayam dana am solo ci Afrique ak ci àddina loolu moo tax ñoom ñu ngémb leen pour ñu nëxatal xelu nit ñi ba lii bañ a am. Mmh, nga jàpp ne yow mbas mi aussi mën nañ ci profito euh, ngir mën a dog buum gi dox suñu diggante te di ñu tardeel. mais évidemment que mbas mi tax na ba suñu chef d'état yi profito ci ñoom tam ni critères yooyu ñuy téye dana koy aj comme ni ko union européenne ajee bu ko Nigéria ajoon ma ni monnaie bi dem na ko def rapidement et puis dajaloo UEMOA euh, euh, euh, oram bi nga xam ne moo nekk banque de France mu génne ko indi banque commune banque centrale fédérale bu CEDEAO et comme ça garantie bi France doon def France dootu ko mën a def ndax amul amul contrepartie amul lu koy ci ci li mu wéeru mhm. ci loo xam ñoo ko moom mhm. pour mën a def boobu garanti mhm. or boobu rek moo tax mun nag mu def ko ci or boobu premier jour yi na mënoon na fa génn bu Nigéria defa li mu def kon bokk Nigéria man dama yaakaar ni euh, war nanoo seetaat seen bopp dëgg la dëgg la mën nanoo dem ndax ñu koom-koom CEDEAO bu dee téeméer juróom-ñaar juróom-ñaar fukk yi ñoo ko yor demal seen bopp. Mm. waaye bu demee seen bopp tam dana sori ndax li dal Afrique du Sud moo doon mujj daal mm. te surtout euh, Nigéria bu demalee boppam euh, ji jihadis yi ni ñu ko songee. Mm-hmm. mën na ko bañ a jëkk. dana gën a mm. ndax foofu la puissance. occidentale yi gën a mën a appuyé wu pour tas Nigéria. Mm, très rapidement waxtu bi daf ñu dab lool noo gisee euh, ni ñu gérer mbas mi fii ci senegal ak tolluwaay wi. bon ñu ñu ñu gérer mbas mi moom euh, gouvernement bi ñu ngi def lu mu mën mm. euh, corps médical bi ñu ngi def lu mu mën li mu mën mooy jumtukaay pour que ku ku sa yaram ñu euh, seet la boo yoree feebar bi ñu faj la euh, vraiment te loolu am nañ ci résultat yu baax a baax ndax ñi wér ñu ëpp foofu ñu des ci hôpital ñu ngi leen di faj mhm. donc dëgg la ñii dee dee bi metti na mais pour que dee bi wàññiku euh, ñi ñi feebar dafa war a wàññiku mhm. te ñi feebar mënuñu wàññiku mukk lu dul li nu digle nekk nag ku ne aar boppam mm. li ñuy mesure mesure yi nu digle mm. ku ne sàmm ko ba mat sëkk mm. tant que loolu ñu ne defuñu ko ah wóor na ma ni ci ñu jëm du neex. jërëjëf ndax mm-hmm. ndax kenn benn réew amul kattanu euh, euh, yenu euh, pandémie bi yenu mbas mi. boo bu bu lawee law boo xam ne ëpp na dayoo kon boog ñu ni nan seetat seen bopp xam ni te yàlla buñ leen joxe bakkan daf leen sàmm daf leen laaj ñu fexe aar seen bakkan bañ a xaru bañ a def loo xam day lor seen bakkan wala lor bakkanu euh, doomu adama hmm. loolu la leen sant te loolu nag mënu ko ba deful wax dëgg yàlla fi ñu jëm du neex. jërëjëf Ibrahima Sène ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM tey di la sant bu baax ci disponibilité bi.